الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين بوك بانل والبلاتفورم les dames de Nourayni ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara leen wàcc ci seen wàcc waay kenn ku ci nekk ci turam ak santam di yooyu yëpp nag yooyu yooyu gën a tedd yu gën a kawe yu gën a am solo teg ko ci loxo soxna Mariama Kunta mu jotal ko mboolem ñi nga xam ne mooy man mburu groupe bu prestigieux bii di les femmes de Noreyni wala les dames de Noreyni ñaam mbégte lool di dem siwaat ci yéen comme ñi euh, nga xamante noonu lañ ko doon defe euh, ci jiitu mu nekk suñu sixième partie ci wàllu toujours ci les droits de la femme te waxoon ci li jiitu adraful badani la dal mara li ñu yaakaaroon ne moom mooy la faiblesse euh, physique de la femme euh, ni ko yàlla bindee ci wàllu yaram mu waxoon ci wax euh, yi nga xamante ne mooy adraful ruux yi nafsi ci faiblesse spirituelle psychologique yaakaar ne jigéen dafa war ci wàllu maanaam xel ci ak aussi ci wàllu psychologie ni muy xalaatee euh, yooyu yëpp nekkoon ay foog benn bu ci nekk ñu wax li nga xam ne moo ci dëgg dëgg dëgg euh, mu sori lool li nga xam ne moom lañ koy jiiñ ba wax ci ñetteel bi xalabatul awaatif wa machaayir alal mantiq liñ ne jigéen euh, muy la domination des émotions et des sentiments sur la logique chez la femme Euh, yaakaar ne jigéen aussi xel mi ci jëmm boppam euh, maanaam li nga xam ne moo koy muur ak li nga xam ne moom mooy li war moom mooy li nga xam ne mooy émotion yu mu am ak i sentiment li mu bëgg rek euh, loolu la wax aussi ci li nga xamante ne ni alxaajat almadiya alroxiya lil mara wax li nga xamante ne mooy les besoins yi nga xamante ne ni matériel et spirituel ou moral de la femme wax li nga xam ni moom mooy li soxna di ajo muy jigéen ci wàllu madda ci wàllu ruuxam aussi euh, ci jigéen euh, yooyu aussi euh, mu nekk loo xam ne lu mu bokk ak bu góor la toujours kenn war ko ko jiiñ même bu fekkente ne ci moom lay gën a fës waaye kenn ku ci nekk am nga ci ba mu mat sëkk tey nag ñu war a dugg ci li nga xamante ne mooy al umuma muy la maternité la maternité ci wàllu naka lay maanaam ci wàllu euh, am doomam parce que ñu bëri dañuy yaakaar ne looloo tax mu faible te loolu yëpp euh, du ci dara dinañ ci ñëw incha ak yow aussi nazar surjitsie mara xool li nga xamante ne ni moom mooy euh, maanaam gis une vision sexuelle la femme wala chez la femme naka la ñuy gisee soxna ci wàllu maanaam sëy fii loolu aussi yaakaar ne moom it loolu faiblesse am la te pourtant ko koy ji di ay góor ñoomit am nañu lu mel noonu donc mu nekk loo xamante ne lu am solo ñu war a bàyyi xel yoo xam ne dafa war a nekk euh, loo xamante ne ni euh, bu ñu ko xamee rek kenn ku ci nekk di nga mën a jox sa mboom morom cër muy entre góor ak euh, ndaxte bu ñu xool yàlla li mu def ci ñoom euh, moom mooy euh, bu fekkente ni jël ni mooy maanaam benn quwa jismiya ci yaram moom gën a rëy ko jigéen bi danga koy gis sax ci njaay àll yi ci nag yi ci ci lépp euh, ci yi nga xamante ne ni aussi moom mooy jur yi danga koy gis Euh, da nga gis ne euh, li nga xamante ne moom la yàlla def aussi mu jox góor mu am capacité wo euh, maanaam mën a jox jigéen sécurité man koo jox li nga xamante ne ni mooy possibilité aussi yu bari pour mu mën a ëmb mu mën a wasin mu mën a yor doom jox aussi moom góor toujours mu am yàlla jox ko possibilité économique muy man di dem di fàggu di indi te fàggu indi boobu yëpp bu jigéen a tax gis ngeen toujours euh, yooyu yëpp mu nekk au service de la femme di xidmatil mara mu aussi góor euh, jox ko moom ay besoin gis nga yi muy ji jigéen yëpp mu nekk ay besoin yoo xamante ne ay xaajaat yoo xamante ne ni góor daf ko am ci jigéen euh, ci jigéen donc euh, mu jël aussi force intellectuelle yi nga xamante ni yëpp ay force la comme yi ma wax ni yëpp benn bu ci nekk mu jël jigéen jël góor aussi jox ko ko euh, mu jël góor jox ko mu mën a diriger la société euh, pour bu génnee waaye aussi jigéen mu diriger li nga xam ne mooy ménage mooy maison mooy kër gi ba nga xamante ne ni dina mën a génne góor goo xam ne bu demee ci société bi dina mën a diriger loo mu nekk loo xamante ne ni dafa am loo xam ne lu ama am solo ci ci loolu di ay jàngat yoo xam ne benn benn bu ci nekk euh, ñëw nañ ci wax li nga xamante ne ni moom mooy yi am dég yooyu yëpp nag nga xamante ne ni euh, war nañ ci addu di nga gis ne yu ama am solo la yoo xamante ne ni yi ñu war a def malgré cela nag euh, seetlu nañu comme niñ ko waxee tey ñu ñëw ci wala li nga xamante ne mooy al umuma mooy la maternité malgré li nga xamante ne ni moom la ñu gis ne ci loi yi muy protection des droits de la femme maanaam muy fii ci Sénégal wala ci adduna bi lu ko wër gis nañ ne toujours ci li nga xam ne moom mooy loi yi ñu tëral pour euh, euh, yelleef àq ak yelleefu euh, jigéen Euh, gis nañ ne wax nañ ci wax yu rafet bind ci biit yu rafet def ci ay loi tëggu ko parlement yi voté ko ñu promulgué ko euh, mu nekk nekk mettre ko en application waaye toujours euh, dafa ci biir application bi maanaam li nga xam ne moom mooy jëfe ko dafay wute dafay am benn faiblesse dans l'application ni ko malgré que nag amélioration am na ci texte yi ci yi nga xamante ne ni noonu la jigéen melowoon waxoon nañ ko ci première deuxième troisième vague bi ci Occident ak même ba ci sunu diine l'islam bi ni nga xamante ne ni noonu lañu jàppe jigéen te yàlla jàppewu ko noonu waaye ay israiliyat ay maanaam ay bind ay xam-xam yoo xam ne dañ ko jële ci yeneen diine yi te bokkul ak diine l'islam te diine yooyu li ci gën a bari jële ko ci aade romaine ak aade grecque ñu jël ko nag euh, taf ko maquiller ko jox ko cosmétiser ko jël jël couleuru lislaam euh, fekk dara du ci l'islam parce que boo delloo ci li nga xamante ne mooy nature bi yàlla binde doomu aadama ak ni nga xamante ne noonu la yàlla fonkee doomu aadama te ku ci gën a fonk mooy nit ak ni yàlla wax ne inna huwa alladi xalaqa lakum min nafsin waxida alladi xalaqa lakum min nafsin ki nga xam ne moo leen sàkk ci benn Euh, maanaam mbakkan di gis ne benn mbakkan boobu donc benn responsabilité la même bu fekkente ne nii rôle yi dañoo wute moo tax euh, ci wàllu application bi théoriquement euh, texte yi am na solo trop li ñuy wax ci jigéen muy ci Occident muy fépp ba ci sunu diine bi li nga xamante ne dafa am beneen gisin boo xam ne bu xawula ànd ak sunu al alquran parce que lu ñuy wax diine rek mooy ànd ak diine waaye léeg-léeg dañ koy suuf fekk wàllu féodalisme maanaam euh, wàllu kilifteefu aada moom moo ci nekk gisunu aada moom moo ci nekk te loolu boo dee xool dafa nekk loo xamante ne ni lu réel euh, lu lu lu lu am solo lu du dëgg goo xamante ni ñëpp dañ koy vivre ba tax na jigéen ci jëmu boppam ci ñëpp war nañu xam ne ci wàllu changement social maanaam taxyir ijtimaai pour dëkk bi changer pour euh, ëtt bi changer pour ëtt bi dem yoon pour ëtt bi am développement euh, jigéen def ci am solo trop trop trop trop trop te yelleefam ak àqam buñ ko ko joxul kooku société boobu du mën a dem te fu ñu koy maanaam di ko néewale di ko ñàkkal fayda di ko féetali ginnaaw société boobu du donc mu nekk loo xamante ne ni lu am am solo pour que ñu ñu ñu xam loolu moo waral ci wàllu maternité ñu bari dañu ne donc xëy na faiblesse bi nga xam ne comme niñ ko waxee ci ñi jiitu euh, tey nekk cinquième bi xëy na loolu moo tax jigéen mu nekk loo xam ne dafa faible waaye loolu nekkul loo xamante ne ni dëgg la boo xam ne bu ñu mën a layal waaye ay foog la ak euh, maanaam ay allocation euh, yoo xam ne dañu ko wax waaye teguwul fenn euh, loolu yëpp ci bëgg tuuti jigéen bëgg ko dox ci xelam wax ko ne yow amoo solo yow amoo fayda yow doo ko koo xam ne war nañ ko mën a war nañ ñëw mën a dox ci ginnaawam waaye yow yaa war a topp ci ginnaaw jigéen góor loolu nag mu nekk culture boo xam ne da nga koy gis partout dans les civilisations dans les cultures dans les religions parce que religion yooyu du c'est parce que seeni textes fondamentaux lu mel ni bu dee ci alquran hadis ak alquran ak hadis moom moo wax loolu waaye dañ leen dëkkale maanaam ci interpréter textes yi muy alquran wala hadis si yu authentique yi nga xamante ne dafa wér ci la ñu bëgg a forcer loolu ba wax ci jigéen yoo xamante ne ni dara mosu cee am te pourtant bu ngeen delloo ci l'islam am nu amee ar rijal xawla euh, rasul ci la am an nisa xawla rasul nga xam ne fële mën nañ ci compter presque soixante quinze góor yoo xam ne ay saxaabi yu bari yi ci gën a fës fii aussi mën nañ ci compter vingt cinq yoo xam ne yu gën a fës ci ay jigéen waaye gis nga euh, bariwul sax li ñuy wax ci ñoom wala li ñuy jël ci ñoom exemple parce que dañu leen feggale marginaliser leen te loolu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo moo waral euh, mu nekk loo xamante ne lu am solo pour que kenn ku nekk ci ñun mu bàyyi xel que ne euh, léeg allégation yi nga xamante ne ni moom la ñuy wax ci jigéen dara amu ci yàlla moo ko bëgg noonu mu nekk koo xamante ne ni dafay jouer en rôle euh, pilier pour la société pour la famille euh, mu nekk loo xamante ne lu fondamental pour dundu doomu aadama ndaxte boo dee xool ci wàllu euh, li nga xam ne moom mooy jigéen dooleem wax naa wax nañ leen ko waaye góor ci jëmu boppam comme moom moo yor société bi moom mooy décider ñoom rek ñooy toog ci jigéen bàyyi jigéen moom mu nekk fële loolu nag division boobu moo dem ba jigéen góor teg loxo ci moom carrément wala di ko sosal di ko waxal wax yoo xamante ne ni dafa kéemaane wax yooyu nag dem na ba nga xamante ne sax dafa mujj am doole ba mu am ci wàllu comme niñ ko waxee léegi ci al umuma muy la maternité mu am ci ñoo xamante ne dañuy ñëw E, di jooy jooylu maanaam diine dañuy dimbali jigéen dañuy xettali jigéen dañuy wax ci turu jigéen e, jàpp ne ñoom dañuy war a jàppale jigéen e, di ne force maanaam li nga xam ne sax moom mooy erreur bi tax jigéen ñu dominer ko moo tax ñuy troxal jigéen moo tax ñu wàcce ko moom mooy maanaam il jigéen ci jëm boppam jël intihaj mu jël top maanaam maanaam dundu euh, dundu jigéen maanaam mu masculiniser sa vie waaw il faut que qu'elle emprunte une vie masculine euh, mu mel jàppe boppam comme góor euh, bu ko defee mu sori mu dëddu li nga xamante ne ni mooy rôle am fondamental rôle am naturel ci société bi bu ko defee jigéen boobu peut-être dina mën a dem ba ci li nga xamante ne ni moom mooy Euh, ci développement ci émancipation fexe bokk ba nga xam ne kenn dootu ko tegati loxo wala góor dootu ko tegati loxo xeetu wax yu mel noonu ne jigéen dafa war a bàyyi li nga xam ne mooy rôlam dem maanaam ndoog góor loolu rek déjà wane na ne jigéen mi ni maanaam wàcc boppam mi ngi euh, rendre boppam faible maanaam wàcc na li nga xam ne moom mooy àndam parce que boo demee yow ki nga xam ne moom nga war a xëccool muy góor won ko ne te moom moo jël sa place nga ne ko léegi sax maa bëgg a mel ni yow ku dafay nekk maanaam loo xam ne euh, dafay mel ni ku jigéen ki dafay bëgg a wàcc àndam euh, te loolu dafay nekk danger bu mag pour la société parce que kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar da am sa te kenn ku ci sa moom la ko moom la la yàlla bindeel te moom ci jëm boppam jigéen moo ëpp comme niñ ko waxee wala moo gën a sublime moo gën a am importance ci ko bu góor parce que li yàlla sàkk jigéen moom moo ci gën nga xool mu yàlla jox ko jamaal muy la beauté taar jox ko riqa riq muy maanaam tendresse nooyaay jox ko lafaafa muy maanaam douceur mbo ci yaramam ci ci ci muy xalaate nga gis waxoon nañ ko ci wàllu littérature ci wàllu aar ci wàllu film yu bari Eh, jigéen moom moo ko ci ëpp góor yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne ni ay doole la ay eh, eh, maanaam pouvoir attractif la nga xamante ne ni uwa jaazibiyya yoo xamante way ci inti nga xam ne dina mën a xëcc góor indi ko ci moom ak góor googu lu mu mënti nekk ba mën ko mënate sax enchaîné ko takk ko moom ku góor ci jigéen ki def ko te mu awee ci boteem ci taaram ci tendresse am ak ci li nga xamante ne ni moom mooy douceur am te donc loolu moom mooy li nga xam ne mooy seul importance seul objectif bi nga xamante ne ni ci góor jigéen euh, maanaam mun na ko ko def te loolu yëpp mu tegu gis nga ci doole boteem doole tendresse am doole douceur am bu ko defee loolu mu mën indi li nga xam ne mooy indi stabilité moom mooy li nga xamante ne ni aussi moom mooy indi li nga xam ne moom mooy dal ci société bi bu ko defee loolu dafay nekk loo xamante ne ni lu am solo boobu euh, yooyu nga xam ne moom la ko yàlla may muy doole ci moom te pourtant euh, dañ doon jàpp ne doole yaram mooy doole waaye gis nga ci biir yooyu nga xam ne moom la ko yàlla may mën na dem ba man cee sax au lieu muy mu naan damay dem ba mel ni góor waaye fexe ba nga xam ne góor googu mu nga xam ne moom mu ngi tendre dem ci moom Euh, yàlla def mu jël ko noot ko moom jigéen bi noot ku góor ki ci tendresse am boobu ci maanaam ci boteem boobu ci maanaam ci rafetaayam boobu ak ci nooyaayam boobu ak ci li nga xamante ne ni moom la ko yàlla may ci pexe boo nga xam ne dafay téye ku jiw góor kooku badalan euh, maanaam contrairement à ce que mu bëgg a mel ni moom nga xam ne kooku jigéen mën na ko tàggat mën na tàggat góor ba góor gi nekk ci euh, maanaam ci suufam góor gi nekk ci service am ba nga xam ne góor googu dootu ko jël def ko maanaam objet sexuel wala mu def ko ku loo xamante ne objet la boo xamante ne pour assouvir ses passions donc euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy xalaat bu mel noonu ni muy les féministes wala les féminisés féminisants nga xamante féminisante nga xamante ne ni dañu bëgg jigéen jël wàllu wàllam waaye dañ ko tudde noonu rek waaye boo dee xool dañu aussi dañoo ëppal euh, fexe maanaam bëgg fexe euh, génn jigéen ci trajectoire maanaam yoon bi nga xam ne moom la ko yàlla teg moom la la ko yàlla awale pour que mu mën a def li nga xam ne moom mooy rôlam euh, rôlam boo xamante ne nii pour jubal pour fexe ba nga xam ne nit jub société bi bu ko defee mu am li nga xamante ne moom mooy ngërëmam fexe ba nga xamante ne ni nit kooku dina mën a téye li nga xam ne mooy ses instincts eh, jëfandikoo ko ni nga xam ne noonu la ko yàlla waxe noonu la ko maanaam ni mu ko bindee tabia bi muy nature bi noonu la bëgg ci moom gis ngeen eh, bu xool donc li nga xam ne mooy rôlu eh, am doom muy maternité rôlu maanaam Euh, injab wasin euh, mën a fexe na am ay xale euh, mu nekk loo xamante ne ni dafay am solo loolu moom mooy rôle lu jigéen rôle la boo xamante ne ni dafa fees ak pouvoir dafa fees ak dignité ak honneur pour góor te loolu rek yooyu nga xam ne moom la ko yàlla may ci pouvoir boobu loolu rek déjà dafa nekk loo xam ne daf ko ko may mu am doole ci kaw góor ba góor mu ne góor demal nga fexe ba nga xam ne lii nga mooy xam ne mooy xidmatul mar'a muy maanaam fexe ba nekk service de la femme di ko dimbali ak famille bi yow nekk ci donc mu nekk loo xamante ne ni euh, lu ama am solo yoo xam ne doole la lu yàlla jël ci góor jigéen teg ko ci mu ne góor na jàppale eh, maanaam jigéen pour mu mën a nekk ci maternité mën a am doom nekk yaay mën a yar mën a taxaw góor eh, doom ba nga xam ne société bi dana ñoŋ donc ndekete rôle maternité nekkul lu faible parce que moo tax dund bi mën a nekk moo tax société bi mën a nekk moo tax société bi am stabilité pour dee xool ci wàllu sexualité muy an nazaratul jinsiya lil mar'a li nga xamante ne ni moom mooy gisuñu jigéen ci wàllu sexualité li ngeen gis foofu aussi ne bari na loo xamante ne ni ay erreur la yi yaakaar ne jigéen ci jëmu boppam moom moo ko gën a aajowoo ko jigéen fekk euh, ko góor fekk ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk aajowoo na ko kenn ku ci nekk noonu la la yàlla bindee da ngay soxla sa moroom ndaxte noonu leen yàlla bindee pour mën a sauvegarder le genre humain muy maanaam nit di mën a nekk ci kaw suuf parce que bu loolu amul maanaam sëy bi nga xam ne moom mooy diggante góor ak jigéen aajawante bi diggante góor ak jigéen kon dund boobu du am. Euh, na fi aussi ci point bi ci wàllu sexualité euh, gis ngeen euh, li ñuy wax ne jigéen moo gën a ndax comme moo gën a tendre. bu dee ci wàllu rafetaay léeg-léeg moom lañ koy gën a yaakaare bu fekkente ci wàllu tendresse nooyaay moom lañ koy gën a tendre eh, ci wàllu euh, maanaam euh, yooyu yëpp ci moom mi nga xam ne lataafa wàllu subtilité yooyu yëpp douceur moom lañ koy gën a euh, tendre donc moom moo war a gën a aajowoo maanaam sëy ko góor alors que yooyu kenn ku nekk ci ñun war na xam ne yàlla subhaanahu wa taala ni mu sàkki noonu la sàkki jigéen mu def ci moom kenn ku ci nekk moom ay besoin naturel maanaam ay eh, loo xamante ne ni ay hajaat la yoo xamante ni tabiiya kenn ku ci nekk da ngay soxla sa bopp eh, da bëgg keneen ki yàlla def mu am benn tendance tendance boo xamante ne bii ci góor la nekk bii ci jigéen benn bu ci nekk ñuy daje nag benn bu ci nekk di fekkante sa di fekki sa morom loolu nag ñu gis ne la plupart souvent euh, ci maanaam réalisme boobu nga xamante ne ne sana euh, euh, sanawiyatu awil zawjiya wa zawjiya li nga xam ne réalisme boobu ak conjugalité boobu mooy indi nga gis kenn ku ci nekk di aajowoo sa moroom wa annahu xalaqa zawjayni alzakara wal unsa mooy ki nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala comme ni ko ay waxee ci surtout nag mi ay quarante cinq mu ne mooy ki nga xam ne moo sàkk ñaar waa maanaam ñaari lu ci nekk ñaar góor ak jigéen euh, pour lan pour que ñu mën a dajewaat daje boobu di jur li nga xamante ne ni moom mooy doom loolu nag mu nekk loo xam ne lu am solo di njàngat boo xam ne bu am solo foofu nag yàlla sàkk moom borom bi subhanahu wa taala ashahwa muy passion luxure nga xam ne kenn ku ci nekk comme ni mu ko defee rek ci maanaam njaay àll yi ci bàyyi may euh, nga xamante ne ni benn bu ci nekk bu góor bi dafay fekk bu jigéen bi bu jigéen bi aussi dafay fekk ci bu góor bi mu ngi di ajour rek kenn ku ci nekk ci sa tendance euh, degré bi mu am pour fekki beneen bi ndaxte loolu ay instinct la yoo xamante ne saa yu yëngatoo il faut que mu nekk lu ñuy suural euh, ndaxte da nga koy aajo loolu nag dafay nekk ci góor ci jigéen foo dem rek da koy fekk ci li nga xamante ne moom mooy bind ñu borom bi loo xam ne muy ci góor ak ci jigéen comme ni nga xamante ne ni moom laa ko waxee donc loolu mu nekk loo xamante ne ni dafa am solo. loolu aussi mu nekk benn euh, loo xam ne mutasaawiyataan aw mutasaawiyaani fi mahwayati al ariza al jinsiya donc foofu aussi góor ak jigéen bu fekkente ne dañu naan ci wàllu sexualité ku góor ki moom wala ku jigéen ci moo ëppale ku góor ki kooku ci beneen domaine la waaye fii gis nañ ne kenn ku ci nekk am nga ci maanaam volume boo xamante ne ni mooy bëgg nga sa morom euh, muy ci wàllu pay ci wàllu ànd ci wàllu sexualité bu nga xam ne donc kenn góor ki warul wax ne jigéen kii moom moo ko gën a bëgg wala leneen moom it bëgg na ko xëy na day fekk rek kenn ku ci nekk ci sa envie bi nga xamante ne ni eh, lu am la moo waral kenn ku ci nekk ci ñoom mënul passé kenn ku ci nekk ci ñoom muy góor ak jigéen dafay soxla maanaam moroom ma ci wàllu liñ tuddee sexualité nga xool eh, li nga xam ne moom mooy relation yi nga xamante ne ni dox na ci diggante góor ak eh, jëkkër wala eh, jigéen ak jëkkëram eh, ci aussi fi nga xamante ne ni foofu aju moom mooy fi nga xamante ne ni toujours moom mooy sunaiya boobu ay sina sunaiya bi nga xamante ne mooy dualisme muy maanaam conjugalité nga xamante ne ni ñoom ñaar yooyu ñoom ñooy donc tendance boobu mu nekk loo xamante ne tendance la naturel diggante góor jigéen donc gu góor ci warul rëy làmmiñ wax ne non ku góor jigéen ki moom moo gën a bëgg fekk ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk def na ci bëgg ci ci yow li nga xamante ne ni mooy tendance bi nga xam ne moom mooy euh, bi am diggante yow ak euh, ku jigéen ki wala ci diggante ak ki nga xamante ne ni mooy ki góor loolu nag mu nekk loo xam ne saa yi dajee li muy jur mooy désir maanaam lazza benn bu bu am solo boo xam ne ni muy kiiwee ci ku góor ki noonu lay nekk lu am solo ci ci ku jigéen ki ku góor ki ngeen dafay maanaam am na foo xam ne buñ fa àggee diggante ñaar way jencante yi am na foo xam ne ci maanaam fi muy toll ci wàllu ku góor ki ni muy éjaculer noonu la ko jigéen ñi di atteindre li ñu tudde oscar orgasme moo tax boo demee ci ay ahadis yoo xamante ne ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko jàngale dafa wax ne bu ngeen di sëy ak seeni borom seeni soxna bu leen di gaawantu bu leen mel ni comme mbaam buy ñëw ci moroomu mbaamam bu jigéen bu moroomu mbaamam ñu ne ko mooy lan mu ne mooy ngeen ñëw ci moom rek assouvir li nga xam ne mooy seen désir ngeen dem nee na parce que jigéen mu ngeen de xool ci wàllu sensibilité ak sensualité quatre-vingt-dix pour cent dina ko am ci ci ci ci bànneex que que góor donc mu ne foofu bu ngeen demee ci téere buñ tuddee makaarimul axlaaq bu tabarisi mi ngi ci xëy na dinañ ci mës a ñëw ci jamono yoo xam ne dafay wax naka la ñuy séyee préalable yi naka la war a demee diggante góor ak jigéen balaa ñuy ñuy ñuy sëy loolu aussi mu nekk parce que nee na moom yonent yàlla sallallahu alayhi bu fekkente ne bànneex fukk la nee na juróom-ñeent yëpp ci wàllu sëy mi ngi nekk ci jigéen mu ne donc bu leen di gaawantu bu ngeen di sëy ak euh, soxna loolu donc mu nekk beneen force boo xamante ne bu am solo moo tax euh, euh, loolu yëpp pour dab li nga xamante ne ni moom mooy bànneexu jigéen. bu euh, baax loolu nag euh, bu ñu jàpp ne c'est parce que comme moo ëppale ci wàllu bànneex rek donc moo ko gën a bëgg parce que léeg mën nga ñëw sax nga nekk ak moom yàlla moom moo ko defal loolu fekk moom ni muy demee maanaam ni muy atteindre loolu ma wax léegi mu euh, orgasme ngeen jégal ma ko ci wolof moom ku ku jigéen ki léeg dina dem ci jamono loo xam ne dafay tegaloo waaw dafay tegaloo alors que ci góor ki moom bu jékki-jékkee rek benn yoon rek moom balaa mu ko mën a defaat foo mu toogaat ay temps donc loolu aussi di wan li nga xam ne mooy doole bi nga xamante ne ni mooy yàlla def ci jigéen muy les caractéristiques physiques euh, maanaam équitane li nga xamante ne mooy al misaat jinsiya wal jildiya lil mara li nga xam ne moom la yàlla def ci moom ci wàllu maanaam yaram waaye aussi ci wàllu maanaam der Euh, li nga xam ne euh, ak li nga xam ne moom mooy euh, nga xam ne daf ko ko bindee nga xam ne yooyu ci yooyu daf koy war a mën a yëg ak également ni nga xam ne noonu la mën a attiré waaw waaw waaw bi xarakaatiha la maanaam ni muy yëngoo ni muy demee ak yooyu yëpp démarche am yooyu yëpp na yooyu ci bokk mais également jigéen nekk koo xamante ne yàlla aussi daf ko may euh, ci beneen mise gannaaw bi mu ko mayee ci yaramam ak ci euh, wàllu der bi wàllu aussi ni muy yëngatoo buy dox di dem bu mu mën a attirer attention yi waaye noonu la ko yàlla mayee xel xel moo xamante ne bu gudd xel moo xamante ne ni mën na nëbb li nga xam ne mooy véritable sentiment ak ay émotion bu ko neexee nga gis léeg mu mel ni ku autoréticente euh, bëgg dara waaye mu mel ni kom bëgg ko euh, fekk mu ci bëgg dee gis nga yàlla daf ko may lu mel noonu alors que góor néew na nga gis bu bëggee rek la plupart day jékki-jékki rek direct dem donc nga gis jigéen dina bëgg euh, waaye dafay mel ni kom bëggul loolu yëpp nag mu nekk loo xamante ne ni force la foo xam ne yàlla daf ko ko may moo waral warul moom bàyyi jigéen boppam mu nekk jouet mu nekk fowukaay boo xamante ne nii ay ñeneen ñoo xam ne comme ni mu ko waxee ci lu jiitu dañuy jooy jooyle di wax ne dañuy maanaam euh, yelleef ak jigéen moo leen tax a jóg donc dañuy fexe pour xeex loolu pour indi ko waaye ñooñu mu ngeen leen doon xool te ñu ànd ak tubaab yëpp ñoom ñëpp ci seen jëmu bopp fi ñuy demee jigéen moom mooy dañu fexe ba jël jigéen def ko loo xamante ne ni objet la waaw def ko futti ko euh, ba mu set euh, jël ko dugal ko ci seen euh, maanaam bërëbu utukaayu xaalis bërëbu fépp foo xamante ne fu ñuy ute xaalis la fépp foo xamante ne ni fu ñuy ute koom la jigéen dañ fay jël teg ko fa waaye jigéen boobu dañ koy ñàkkal solo li ñu koy fay bu ngeen dee xool ak li ñuy fay ku góor ci même travail léeg-léeg di doon benn jigéen bi moom la ñuy gën a défavoriser donc loolu nag loolu warul nekk loo xamante ne lu am solo loo xam ne dañu ko war a topp jigéen dafa war a xam boppam jigéen warul topp góor ñi nga xamante ne la plupart ñoom dañuy bëgg rek maanaam jël jigéen def ko mu nekk objet sexuel objet de de plaisir nga xamante ne saa ñu soxla euh, féexal seen xol dem ci jigéen boobu jigéen boobu aussi waru ko yombalal góor jigéen dafa war a am fulla ci boppam dafa war a am fayda parce que yàlla comme ni ma wax ni force yi mu def ci moom ci maanaam ci yaramam ci maanaam ci xelam mu am xel moo xamante ne bu bu yaatu yàlla nga xam may ko dafa may ay forte sentiment ak i émotion yu am solo mu may ko ay pexe yoo xamante ne ñu kéemaane warul fexe ba fàtte li nga xam ne moom mooy rôle fondamental war moteur li nga xam ne moom la yàlla def ci moom mu bàyyi koog ñoo xamante ne ay góor ñoo xam ne ñu xaw a euh, seen fayda dafa manqué seen ñàkk solo dafa manqué jël kooku ku jigéen ki ne dañ koy utiliser pour seeni propre désir fexe ba nga xamante ne dafay nekk ci xaala isti'raadiya gayral euh, mantiqiya mu nekk ci euh, maanaam euh, benn li ñu tuddee état benn demeure boo xamante ne ni de défiler comme ni leen di jëlee di génne leen défiler leen mode solal leen yu gàtt fexe futti leen ba nga xam ne seen yaram yi nga xam ne dañu ko waroon a téye euh, maanaam ñoŋal ko ba nga xam ne ku leen gis euh, jox leen respect euh, loolu warul fexe waruñoo jël ñàkk solal seen bopp ba àgg ci daraja boobu daraja boobu nga xam ne moom mooy dañuy dem ba ñuy mujj nekk aliyasu billah ay marchandise pour jigéen ñi euh, pour góor ñi jigéen dem ba nekk ay marchandises aliyasu billah euh, li istihlak rijal pour consommation wu góor ñi ci wàllu plaisir euh, mu nekk plaisir yoo xamante ne ni loolu waru ji góor waru ko mën a am mu yombe noonu ci moom ci jigéen donc moo tax li nga xamante ne mooy phénomène boobu nga xam ne gis nga ko tey moom moo law ci adduna bi te loolu ñi ko fi indi moom mooy tubaab yi tubaab yooyu ñoom ñoo ko yaatal ñoom ñoo fexe ba nga xam ne ci seeni mbir ñu jël ñaar teg ko jigéen e, bu jigéen almara li ishbail li ishbai xaaj rajul jinsiyan fexe ba nga xamante ne ni ku góor dafay nekk pour assouvir e, les désirs sexuels de l'homme ba nga xam ne li nga soxla li soxla góor ci wàllu sey Euh, ak jigéen fu góor soxlaa rek mu am ko loolu mooy premier tendre piège bi nga xam ne moom la góor ñi def ci jigéen ñi foofu en Occident ñaareel bi mooy almara lil amali zahid lil amali zahid euh, al al ujur fexe ba nga xam ne ku jigéen ki dinañ ko mën a utiliser ci seeni industrie ci seeni bërëbu jaaykat di ko jiital ba nga xam ne Euh, dina mën a indi njaay mi mu yaatu njaay mi mu gaaw a a jar waaye aussi mu nekk loo xamante ne bu leen di fay duñ leen fay comme ni ñu fayee góor ñi parce que gis ngeen ni ñu leen di exploité ci milieu euh, de commerce yi euh, parce que gis nañ ne bu ñu jiitalee góor jigéen teg ko ci milieu de commerce yi day attiré déjà moom jigéen nekkaayam rek ak nu ko yàlla bindee ci douceur ci maanaam ci tendresse ci wàllu beauté bu fa nekkee rek te góor loolu rek la bëgg da ngay gis dafay attiré te bu attiré gis ngeen ne bokk na ci li nga xamante ne ni moom la jigéen mënal euh, góor mooy fexe ba nga xam ne gis nga góor googu mën na ñëw bu ne ko lii ñaata rek gis nga fugg góor ki maanaam honneur euh, maanaam dafa koy blessé mënul nekk wax naan ay wàññi ak yooyu parce que du bëgg jigéen bi xam ne kii dafa nay wala dafa ñàkk donc loolu daf koy xëcc attiré ko bu ko defee mu mën a euh, mu jënd te loolu dafay jaral euh, kii bi donc euh, dafay jaral li nga xamante ne ni mooy seen commerce moo tax ñu jël ñaar yooyu pour assouvir ko ma seen désir waaye aussi pour fexe ba nga xam ne ci wàllu jaay ak jënd dinañ mën a utiliser jigéen fexe ba nga xamante ne ni dina li ñu bëgg ci moom dinañ ko am moo tax loolu nag warul nekk exploitation boobu mu dem waat jigéen ci maanaam li nga xam ne asrul jaahiliya la maanaam et maanaam ci ignorance nga xamante ne lu yàgg lañ ko gis ci taarix gis nga kom jigéen ni ñu nga xam ne noonu la ñu waxee woon nga koy wane nga xam ne dañoo ñëw amuñu woon cër amuñu woon sër amuñu woon yére yu ñu sol nga xam ne yaramu ne lañ doon def jigéen warul delluwaat foofu jëlaat boppam de maanaam fexe ba nga xamante ne ni Eh, dafay delluwaat eh, ci wàllu eh, yaramu neen fukki boppam ñàkkal boppam solo def boppam objet sexuel def boppam bu ñuy jaay mu mel ni moom mooy comme mu mujj nekk sax marchandise bu muy jaay mooy première marchandise bu moom ku jigéen ki parce que moom mooy xëcc ci moom la ñuy xëcce bu ko defee mu sa boppam ci li nga xamante ne ni moom la ko yàlla bindee mu waroon a yëkkati boppam yëkkatiwul boppam nekk koo xamante ne ni dafay futti yaramam nekk euh, dung euh, euh, wàññi li nga xamante ne ni moom mooy valeur am ak responsabilité familiale ak social maanaam yi nga xamante ne moom la yàlla tegoon ci moom pour que mu mën ko jouer pour rôle doomu aadama maanaam li nga xamante ne ni moom mooy al mujtamaa muy la société mu mën a ñëw muy ëtt bi mën a ñëw mujj na ba dem Euh, bu jigéen kooku bu euh, maanaam fexe ba futti boppam ñàkkal boppam solo ba mën a nekk dem ba nekk instrument boo xamante ne ni dafa bu ñàkk solo euh, ci loxo ay góor yoo xamante ne aussi yu ñàkk solo yoo xamante ne ni gisuñu lu dul ñaar mooy fexe jël jigéen fuufeel ko tuutil ko alors que yàlla daf ko yëkkati jëmale ko ci kaw gis ngeen genre naxe yooyu nga xam ne nag noonu lañuy ñuy naxee te yëpp ndax yooyu ñu koy indi moom mooy góor ñi mu am nag ay jigéen yeen ci fekk si ak ay góor ànd ak ñoom ci loolu góor ñi aussi fekk si waat leen ci terrain boobu dévier waat jigéen yi naxaat leen ne leen yéen a ngi wax ne dañ leen ñàkk loo fayda seeni seeni seeni kii yéen a ngi wax ne dañ leen ñàkk loo fayda seeni yelleef ak seeni àq dañu leen ko xañ léegi sax li ko indi ñun yaakaar nañ ne moom mooy euh, seen wàllu njur maanaam maternité donc war loolu warul war a am dangeen di topp comme góor ñi da ngeen di mel ni ñun acca kaay leen bu ko defee ñu doon sol robe sol pantalon ñi doon sol pantalon sol robe mu nekk société boo xam ne bu anarchique mu jaxasoo loolu yëpp li ko nii dafa am loo xamante ne benn politique bu nekk ci suuf boo xam ne dafa anti religieux anti clérical moo xamante ne franc yi ak ñu mel ni ñoom ñoom ñoo ko taxawal nga xam ne lépp loo xamante ne valeur la diine moom moo ko indi nga xam ne noonu idéalisme la euh, maanaam noonu la nit ki war a mën a demee noonu la waroon amee nit ki war a amee jikko moom la ñuy indi ñu teg ko gis ngeen fii par exemple au Sénégal euh, ñu joxe un exemple gis nga tey euh, jigéen ñi dañ koy xool ci wàllu sangewu ci wàllu solu ci wàllu li nga xamante ne ni moom mooy booy génn mooy sa kër muy fu nekk dafa mel ni góor ñi ñoom ñoo gën a respect ñoo gën a am respect sangewu ci wàllu colin ñoo gën a am pudeur ñoo gën a am kersa ci wàllu solo gis ngeen da gis tey boo demee eh, ci de travail ngay liggéey gisoo mosu leen gis mukk ci benn kilifa buy dem di sol kilote di génn pour liggéey ci jullit ñi gisoo ko même ba ci ñi nga xamante ne ni nekkuñu ay jullit eh, mais doo ci gis mukk sol kilote wala panchan muy dem di liggéey ci building administratif wala dem présidence de la république di liggéey wala ci ministère yi di liggéey waaye ci fii rek ngay gis jigéen mu sol euh, robbam courte euh, boo dee xool sax demoon na ba ci euh, jamono ba defe naa ba léegi ñu ngi koy interdire ci lieu public yi place yi nga xamante ne ni de travail la administratif jigéen di fa sol yenn colin yi bu gàttee wala bu fekkente ne dafa nekk yu moulant yoo xam ne dafa seere yu xaw a indécent des tenues indécentes dañ leen koy tere alors que gis nga parce que dangay ngay xool même bu bu seddee sax da ngay gis dañuy sol seen kurtu robb yi donc loolu yëpp nag maanaam li ko indi moom mooy philosophie wu féministe boobu nga xamante ne ni euh, buy naxaate la moom moo wax jigéen ñi solu leen loolu léegi dafay dem ba góor bi nga xam ne moo waroon a gën a mën a nga xam ne diggante li nga xam ne mooy jumba xam ak oomam moo dul moom mooy awra ci moom li ci des yëpp du awra tu vois comme niñ ko jàngalee ci charia jigéen nag lu dul loxo yi ak kanam bi loolu moom mooy euh, moo dul awra waaye léegi dafa dem ba ku góor ki moom yooyu yëpp yi nga xamante ne moom la jigéen di waroon a kii moom moom lay sañ moom lay moom lay sàng moom lay suural waaye ku jigéen ki moom yooyu yëpp sax daf koy dindi donc gis nga c'est le contraire mu nekk lool mu nekk culture boo xamante ne ni euh, bu bu doy waar boo xam ne moom mooy indi inhidaar mooy indi déclin euh, maanaam civilisationnel culturel Euh, ak rôle bi nga xam ne moom la jigéen waroon a euh, jouer euh, te jouer wu ko ndax lan parce que dafa topp ñoo xam ne dañ koy ñàkkloo fayda dañ koy génneloo ci trajectoire am bi nga xam ne moom la ko yàlla tracé bu ko defee importance bi nga xamante ne ni moom la waroon a am du ko am donc te pourtant jigéen waroon na gën a muus loolu parce que waxoon nañ ko jigéen mën na fekk un roi nga xam ne ñëpp dañu ko Euh, jox doole ñëpp dañu ko dañu ko bàyyi xel ñëpp dañu ko topp jigéen fexe ba détourné ko détourné xelam ak yëpp waa boobu nekk ci waawu ku jigéen ki muy muy nitu diine muy sëriñ muy euh, euh, nitu àdduna di buur di ministre di président di di directeur ak yëpp mën nañu am ndomb tànk bu rëy ñëpp di leen ci respecté Euh, même ñu am jabar boo xam ne moom moo nekk ci suuf te loolu lu ñu ku lu ñu def rek kooku ñooñu lu ñu def rek ku jigéen ki ci jëmu boppam moom moo ci moom moo ci nekk donc jigéen warul tuutil boppam ba nga xamante ne ni moom mi nga xam ne la la la maanaam famem mu dem ba nga xamante ne ni dañu koy mu bàyyi soucier maanaam culture bi nga xamante ne ni culture striptease la striptease culture striptease moom mooy saqafatu taarril mara nga xam ne dafay maanaam di euh, jël jigéen di ko fukki di ko ñàkkloo fayda di ko dugal ci ay place yoo xamante ne ni du place yu baax du place yoo xamante ne ni place yu gërëm la bu ko defee ñu nekk foofu ak ay góor góor yi di mën a am ci ñoom li nga xamante ne ni waruñu ko war a mën am ci yoon woowu mu nekk loo xam ne lu am solo ndaxte ñëpp xam nañ ni offre bu baree rek maanaam demande bi euh, euh, euh, du dafay néew alors que maanaam bu ñu nee marchandise bu baree rek ñi koy soxla léeg-léeg dafay néew waaye bu fekkente dafa raar ñi koy soxla dañuy dañuy bari te loolu nag jigéen war na ko bàyyi xel ba nga xamante ne ni du jël boppam suufeel boppam ñàkkal boppam sa fayda waaye dafa war a xam ne moom femme la boo xamante ne leader maanaam yàlla daf ko def mu nekk koo xamante ne ni dafa am doole ci wàllu maanaam administration jigéen mën na diriger waaw de manière très euh, maanaam compétente ndaxte yàlla may na ko compétence comme yi ma wax comme ni mu maye góor euh, tey bu ngeen dee xool sax ci wàllu yu bari ci ay poste de responsabilité ci wàllu administration boo ko joxee jigéen ñi léeg ci ngay gën a mën am sax résultat ko boo ko joxee góor ñi gis nga ba ci wàllu dawal oto jigéen ñi ni ñuy mën a dawale di respecté code jigéen ñi góor ñi ci seen jëmu bopp ñu euh, maanaam maanaam loolu nga xool aussi ci wàllu euh, maanaam euh, ci ci wàllu citoyenneté jigéen ñi respect bi nga xamante ne moom la ñuy am ci les règles de la mooy ni ñu war a dundee al muwatana da ngay gis loolu aussi dafa nekk loo xamante ne lu am solo ci wàllu maanaam muhit ilmi ci wàllu maanaam sur le milieu euh, plan maanaam sur le milieu euh, scientifique mais aussi culturel da ngay gis jigéen dafa nekk koo xamante ne ku am solo koo xamante ne ni euh, ku ci mën a jouer un très grand xam naa ne dinañ ci ñëw nii ci lay moom la ñuy jeexale ci incha allah wax jigéen ñi nga xam ne ci wàllu xam-xam ñu xamee woon lañu te ñu def loo xam ne muy ci lislaam ak ci xam-xam dafa nekk dafa changé maanaam dundinu doomu aadama bu baax a baax a baax a baax a baax a baax donc euh, ci côté yooyu yëpp mu nekk ay jigéen mën na dem ba nga xamante ne ni loolu yëpp daf koy am daf koy joué rôle yoo xamante ne ni am solo ci wàllu xam-xam ci wàllu citoyenneté ci wàllu administration ci wàllu yorinu réew ak loolu yëpp donc loolu moo tax gis nga yàlla subhanahu wa taala euh, mu fexe même budul l'islam nga xool dans les autres sociétés doon muur jigéen ba ci Europe boo dee xool Europe occidentale avec la révolution française de 1789 ci anticléricalisme bi nga xam ne régime nouveau bi moom la indil euh, moom moo indi maanaam muri jigéen waaye bu ngeen dee xool pays yi nga xam ne yëpp euh, christianisme daf ko dominer wala judaïsme ci Europe ñoom ñëpp da ngay gis dañuy doon muuru euh, ba gis nga ko ci sunu seen jigéen mooy muy euh, kii jigéen yi maanaam ñi nga xam ne ay nitu diine lañu ci chrétien yu jigéen euh, maanaam mooy euh, mère yi sœurs yi les sœurs gis nga ni ñuy solo boo xoolee dem ci sœur carmélite li wala Saint Joseph de Cluny nga xam ne dañuy muuru duñu benn bàyyi seen cër benn génn bu dee ñi jigéen ñu aussi nga xam ne ay sœur lañu ci catholique yi da ngay gis ñi nga xam ne noonu la ñuy muuroo boo demee ci pays de l'Est yi généralement daal les campagnes ak foofu aussi gis nga ni ñuy muuroo loolu nekkul rek murinu lislaam waaye gëdd la boo xamante ne ni société yooyu dañ ko yàgg jox jigéen parce que xam nañ jigéen rôle bi nga xamante ne ni moom lay jouer euh, te mu am importance pour la société. hijab boobu nga xam ne moom mooy voile boobu nga xamante ne ni moom la jigéen doon teg ci boppam euh, ki nga xam ne moo ko dindi comme dama leen ko waxee. moom mooy euh, maanaam euh, mi ngi njëkkee ci ci ci France après la révolution de 689 nga xam ne diine nekkatul fondement euh, ñooñu nag nga xam ne la plupart c'est des ennemis de l'humanité ñoom ñoo indi loolu nga xam ne indaale société maanaam ci société bi benn soqab foo xamante ne ne haddama une culture de destruction wala destructrice boo xamante ne ni moom mooy indi ne fu ñu jaar ñu def mu am musawama maanaam égalité entre l'homme et la femme te nekkul loo xam ne dëgg la parce que boo demee sur les faits nekkul loo xam ne lu dëgg la à chaque fois yéen a ngi dégg di gis en France toujours ay grève yoo xam ne dafay am entre les hommes ak la femme ci maanaam seeni liggéey ci maanaam traitement yi nga xamante ne moom la ñuy leen di teg te ñu nanguwuñu ko bëgguñu mu am donc loolu moom moo tax ñoom fenn rek la ñu wax ne góor ak jigéen dañoo war a niroo mooy ci wàllu futteeku waaw futteeku def sa yaram yaramu neen te loolu war vraiment diggante nekk benn entre góor ak jigéen warul yem rek ci futteeku wala iyaazu billah kenn ku nekk di ko gis nga moo tax moo indi philosophie mariage pour góor góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy al iyaazu billah loolu yëpp ci France la la la la la commencé gis nga ñu institutionnalisé ko donc loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo dafay wàcce jigéen valeur am waaye aussi dafay teg góor aussi ci li nga xam ne trajectoire boo xamante ne yàq la toujours gis ngeen ko saa yu fekkente ne ni saa yu jigéen am na ci góor yoo xamante ne ni seen himma maanaam seen mbir seen bëgg-bëgg seen mission mooy fexe ba nga xam ne jigéen bi nga xam ne moom mooy euh, maanaam rivalam ci wàllu nite moom mooy wujjoom ci wàllu nit fexe bu ko jigéen koogu toujours dafay des ginnaaw bu ko ñëwee sax ne ko utal li nga xam ne mooy sa droit moom ku góor kooku dina fexe ba ku jigéen ki loolu muy wax droit mu lonkuwaat ci gën a tuutil jigéen gën a jox jigéen fayda moo tax jigéen dafa war a nekk koo xamante ne ni dafa war a muus dafa war a euh, xam li euh, nga xam ne mooy pakk-pakk yi ko euh, góor tegal ci kanamam ba nga xamante ne ni moom dina mën a yi gën a yëkkatiku ci wàllu jikko Euh, ci wàllu mu xam ne moom jigéen warul nekk objet sexuel warul nekk femme maanaam boo xamante ne ni marchandise boo xam ne dañ koy ku bëgg a jaay sa njaay rek jigéen ngay indi teg ci kanamam te loo koy fay du ci nekk lu lu war euh, mu nekk benn fer valuwaal lu la neex rek euh, nga teg ko ko mu nekk jigéen koo xamante ci wàllu bànneexu moom la ñuy woo moom la ñuy indi aussi Euh, ci wàllu bu ñu bëggee secouer société jigéen la ñuy indi maanaam tas société jigéen la ñuy indi indil ko maanaam li nga xamante ne ni mooy ay jikko yoo xam ne euh, xaaruñu ko ci moom euh, dem ba nga xam ne comme nu ma koy waxee ni gis nga sànq ci maternité ñi ne xëy na loolu moo tax góor ñi kii leen ba dootuñu bëgg a jur ak yeneen yu demee noonu dañuy bëgg a mel ni comme góor ñi ba nga xam ne dootuñu resté ci foyer Euh, dootuñu nekkati yaay dootuñu nekkati sœur dañuy mel ni comme góor ñi te góor ñi ku mel ni ñoom yaakaaruma dinga dem di mën a am al intisaab aw al insaab maanaam fexe jur doom fexe ba nga xamante ne ni mu am sihatu nafsiya muy maanaam santé si et psychologique des femmes euh, des des hommes ba ci sax ci xale yi parce que bu fekkente ne dem nañ ba société bi kenn bëggatul dur Euh, léegi góor a góor ñooy sëy jigéen ak jigéen ñooy sëy donc yaakaaruma foofu xale boo xam ne élevé wu na ci société bu mel noonu dina am liñ tuddee benn probité maanaam psychique psychologique euh, waaw donc gis nga bu ngeen dee xoolee sax euh, société yi nga xam ne dañoo dem ba rôlu jigéen bi dañ ko ñàkkal solo fexe ba comme niñ ko waxee ni taux de suicide yi foofu la gën a bare jigéen boobu nga xam ne yàlla dafa def ci moom rëy yàlla def ci moom oh, mu nekk ko am solo eh, dafa am ñaar ñi koy xëccoo xëccoo boobu nag eh, benn bi mooy eh, ak diin mooy diine al axlaaq wa nizaamul ijtimaai maanaam diine la religion la morale l'éthique ak li nga xamante ne ni le régime wala le système social mu nekk loo xamante ne lu am solo Euh, euh, yoo xam ne ñooñu euh, ñett yooyu ma wax fi ko bëgg a teg dafay woo doomu aadama surtout jigéen ci li nga xamante ne ni mu fexe li nga xam ne moom la yàlla may yàlla may ko ko muy ay doole muy ay talent muy li nga xam ne mooy taar muy tendresse am douceur muy bëteem yàlla def pour na ko muur waaw parce que pour rek mo bañ a nekk objet boo xam ne euh, dañ ci maanaam mën a teg bët teg loxo mu yomb lool waaye dañ ci war dañ ko war a fi nga xamante ne fa la war a awee bu ko defee ku jigéen kooku mën a am respect mën am déférence ci société yi nga xam ne ci la nekk waaye aussi mu am beneen xutbu boo xamante ne ni moom ay euh, relation yëpp ak jigéen mooy intérêt rek la ci gis mooy beneen mooy ay góor yoo xamante ne ni seen objectif mooy fexe li nga xam ne alfasad corruption ñu tas ko ci kaw suuf si désacraliser la femme ñàkkal solo jigéen dencal ci moom lépp loo xamante ne ni mooy ay valeur fexe ba nga xamante ne ni jigéen boobu dañ koy futti ñàkk ko solo mujj nekk euh, maanaam objet de sache maanaam nga xamante ne ni euh, pour bu ñu maanaam euh, di rëbb di ko rëbb Euh, bu fekkente ne ni soxla nga alal wala soxla nga pour xëcc ay nit ci jigéen ngay aw pour am alal boobu na ngeen xool rek suñ société yi nañu mel ni tey ak ni ñuy exploité jigéen te joxuñu leen dëgg dëgg dëgg warugar bi nga xamante ne ni ñoo ñoom la ñoom lañ leen war a jox nga xool même buñ leen di jox sax ci service yi service clientèle lañ leen di jox commercial ak yeneen yu demee noonu alors que pourtant seeni compétence ñoom jigéen yooyu weesu na foofu lool moo tax jigéen dafa war a ubbi xelam ubbi xolam xool diggante ñaar ñooñu nga xam ne mooy diine bi ko bëgg a jox maanaam maanaam li nga xam ne moom mooy diine jox ko éthique morale jikko yu rafet teg ko mu gérolam bi nga xam ne mooy bi war ci société am ak i euh, famem ak ñi nga xam ne ñoom dañ ko bëgg a génne def ko nekk moyen de pour utukaayu xaalis pour ñàkk loo ko solo ñàkk loo ko fayda jigéen war noo ubbi xelam xolam xool ñaar yooyu kan moo ko ci gën a bëgg même bu dee sax ci tur yu gën a rafet ci yu gën a neex la ko la ko sampe di naan man maay ki nga xam ne man maay euh, kiiwal jigéen man maa ko jox waru garam man maa ko jox yelleefam waaye boo demee ci pratiquement jigéen euh, kooku nga xam ne moom mooy wax joxu ko loolu jigéen góor googu joxu ko loolu ñu mu ci xool daf ko def saam objet boo xamante ne saa yu ko neexee la koy def euh, dem ba nga xam ne sax day nekk un voleur de plaisir ci jigéen góor googu nga xamante ne ni moom lu ko ci neex rek euh, maanaam mooy sàcc plaisir am ci ci ci ci jigéen maanaam ñu ci dellu suusu shahid euh, shakhsiyal mara maanaam nga xam ne dañuy sàcc plaisir ci jigéen ñi euh, ñàkkal leen solo ñàkkal leen fayda teg leen fi nga xamante ne ni foofu la leen yàlla teg mu nekk loo xam ne lu doy waar parce que xam nga jigéen bu ngeen dee xool sociologie euh, jigéen dafa bokk ci tabu yi tabu mooy gis nga ci wàllu diine yi euh, ci wàllu aada yi njëkk yi ci wàllu clan yi ak ci ethnie yi njëkk yi dafa am leen tabu moo am tabu mooy képp koo xam ne da nga am personnalité danga am xorma dañu la doon teg ci foo xamante ne ni place bu rëy la kenn du la laal dafa mel da ngay am immunité immunité boobu nag nga xam ne ñëpp dañ lay jox cër kenn du la tudd sax yéen dañ laan eh, waaw wax ci lu baax wala leneen jigéen noonu la mel ci société yi noonu la meloon waaye dañoo dem ba dañ ko bëgg a sacraliser tabu boobu nag nga xamante ne gis nga ci arab xaram la ñuy tuddee sa xaram lañ ko tuddee mooy tabu gis nga jigéen dañ ko ko moom lañ koy wax sax ci ci arab boo bëggee wax sa sa soxna ci loxal arabiya xaram lañ koy tuddee donc nga xool euh, xaram boobu nga xamante ne kalima allati tutlaqu aadatan al amakin al muqaddasa maanaam ci biir sacré yi moom lañ koy wax comme masjidul haram gis nga ko donc baytullahi al haram gis nga ko haram boobu moom mooy loo xam ne lu sacré lu tabu loo xam ne daan ci wax lu dul lu baax moo waral gis fi fii loo xamante ne ni sexe la ak yeneen yu demante ne sax gis nga dañu naan tabu la kenn du ko wax société yi nga xam ne pudeur mu ngi koy diriger ba léegi société yoo xamante ne ni ci jikko yu rafet ci yu baax ci la ci la tew xool ci wala ñu tuddee culture euh, religieuse maanaam saxaafa diiniya jigéen dañ ko teg ci martaba boobu nga xamante ne tabu la boo xam ne dañ ko war a euh, maanaam protéger dañ ko war a préserver euh, mu wuteeg société yi nga xam ne tey moom la ñu tuddee dit civilisé développé avancé occidentalisé nga xam ne ñoom dañoo jël jigéen désacraliser ko dindi ko teg ko maanaam euh, foo xamante ne du teguwaayam moo waral gis nga lislaam moom bi mu ñëwee euh, ak diine yi nga xamante ne ni dañoo tegu ci jàngalinu nu bi subhanahu wa taala ak philosophie yooyu dañoo ñëw jël jigéen bëgg jigéen ñëwaat delluwaat ci li nga xamante ne ni moom moo taxoon yàlla sàkk ko pour mu mën a nekk koo xam ne dina mën a sauver la société donc fexe ba muur cëram Euh, fexe ba nga xam ne du laalanteeg euh, ku ku ku ku ki nga xam ne moom la war a laalanteel fexe ba nga xam ne yàlla dina euh, fexe ba nga xam ne li nga xamante ne moom mooy nekkinam mën ko aar ba nga xamante ne ni dina mën nekk ku valeureuse koo xam ne dinañ bàyyi ci moom xel ci société muy bañ a suufeel boppam parce que nit ñi niñ la gisee rek noonu lañ lay jàppee ndaxte diggante ak góor ak jigéen eh, kenn ku ci nekk yàlla may na la nga am li nga xam ne moom mooy doole talent boo xam ne benn bu ci nekk mën nga dominer keneen ci eh, loolu moo tax jarul ñuy wax naan ku góor ki eh, ku jigéen ki di ko nax ne ko waroo am doom waroo am li nga xamante ne ni moom mooy nga nekk sœur da ngaa war a ba mel ni comme ñun góor ñi te donc boo meloon ni ñun góor ñi c'est di ko wàcc nga sa ànd également waruñu wax ni jigéen rek moom moo soxla sëy wàllu sexualité waaye wàllu sexualité lu mu bokk la ak ku góor ki kenn ku ci nekk danga koy soxla di ko namm euh, ak ki nga li nga xamante ne ni moom mooy sa sa sa morom donc loolu mu nekk loo xamante ne lu am solo parce que wax nañ sax ne doole góor doole jigéen ko ëpp doole ti parce que histoire nettaliwuñu benn buur boo xamante ne ni am na doole ba nga xam ne maanaam euh, euh, buur bu jigéen boo xam ne am na doole ba góor am ci moom doole boo xam ne dina mën a changer li nga xam ne mooy décision waaye li ñu alquran jàngal histoire jàngal ñu ko mooy ne am na ay jigéen yoo xamante ne ni seen doole la ñu ay buur la ñu ay président la ñu ay ministre la ñu dominer ay directeur de société te ñooñu ñu am ay góor yu bari yu topp seen ginnaaw waaye jigéen boobu moo leen dominer def loo leen loo xamante ne ni euh, euh, euh, li ñu bëgg ñoom jigéen ñooñu joloon nañ ko ci sunu yaay ki Asiya di doomu jabaru Firawna ni nga xam ne noonu la ko noonu la manipuler Firawna ba reyul Moussa alayhi salaam waaye gis nga rôlu yaayu Moussa ak eh, sœuru Moussa muy mariyam eh, ibnu Imran Imran di bàyyi Moussa ñetti jigéen yooyu li nga xam ne noonu lañu ñu musalee li nga xam ne mooy yonent te gis ngeen ne ab yonent ku yàlla sàkk yonent moo la ëpp daraja donc rôle yu mel noonu lañu bëgg jigéen mu jël ko doxaat ko bu baax a baax bu baax a baax di jeexale ci maanaam liste yi nga xam ne eh, mooy ni ma ko waxee woon sànq ci njëlbéenu waxtaan bi jigéen yi nga xam ne euh, yu am ay ay ay ay ay dañu àndoon ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waroon ko tànn ci rek lu mot euh, fukk rek wala yu demee noonu nga xam ne léeg-léeg bariwul sax li ñuy wax seen tur histoire te pourtant dafa nekk loo xam ne euh, ñu am solo ñu joué seen rôle waaye aussi dinañ wax ci suñu jamono ji rek jigéen yoo xam ne def nañu yu ama am solo pour maanaam avancer doomu aadama dundam neexal ko euh, fexe ba nga xam ne seen rôle mën a ñoŋ gën a am solo te ay jigéen joué ko waaye ñu jël ñooñu aussi euh, wax li nga xamante ne ni moom la ñu joué. yooyu rôle yooyu nga xam ne dañ ko joué sur le plan social économique intellectuel politique euh, mu nekk yoo xam ne yu am solo histoire garde ko ndax taxawaay bi nga xam ne dañ ko taxaw rasulullah sallallahu alayhi taxawu ko lislaam taxawu ko li nga xam ne mooy ngor euh, taxawu ko euh, maanaam euh, nite moo tax te ñooñu dañu nekkoon ñoo xam ne dañu nekkoon ci saaxa bi ci ci terrain bi lu lislaam bëgg ñu taxaw ci lu lislaam bañ ñu xeex ko mu nekk ay jigéen yoo xamante ni yu sell jigéen yooyu nag nga xam ne gis ngeen boo gisee injustice la encore ñu bari xamuñu leen léeg-léeg sax du dégg seen tur lu bari lu dul ñenn ci ñoom ñu ñu nar a tudd euh, te pourtant joué nañu un grand rôle parce que dafa am maanaam comme ñu ko waxee rek injustice ba mooy benn xadis boo xam ne dañu koy wax te teguwul fen parce que dafay dàqonteeg esprit alquran dafay dàqonteel ni yonent bi doon dunde ak sahaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy taabii taabiin yi euh, bi ihsaan dañu ne ci benn xadis euh, euh, euh, liñ waru warul warul warul la laa taxruju abadan illa salaasa marraati jigéen warul génn ñetti ñetti ñett yi rek la war a génn ne min batni ummiha ila dunia mooy buy wasin bu ko yaayam di génn ci ci ci biiram bu di ko wasin pour mu ñëw ci àdduna foofu jigéen dina génn xollel leen ma loolu wa min daari abiha ila zawji mooy buy génn kër baayam di dem ci kër jëkkëram foofu aussi jigéen permettre nañ ko mu génn mu min daari zawjiha ilal xabri mooy buy génn euh, kër jëkkëram di dem fi nga xamante ne mooy xabru baayam xam nga lii c'est grave hadis la yoo xamante ne dañ ko créé de toutes pièces loolu yëpp pour confiner jigéen ana kon jigéen ci role bi nga xam ne moo war a nekk xam-xam ci wàllu économie ci wàllu sociale ci wàllu politique lu tax suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xuzu nisfa dinakum an haadi aw min haadihi al xumayra muy sunu yaay ay Aïcha radiallahu taala anha ni ñu jël ci moom maanaam sunu lu sunu genn wàllu diine xanaa jël ci moom sa genn wàllu diine mooy da war a génn dem uti ci moom xam-xam donc gis nga day waroo te fii defuñu fi pour uti xam-xam pour jigéen te moom moo war a joxe xam-xam bi moom ku jigéen ki daf ko war a jox ñu góor yi jox ko ñu jigéen ñi ana li sunu yaay Xadija doon def bi nga xam ne da doon dem di utali boppam ba mu bi mu am ba nga xam ne dafa ut ñu ko koy utale ci la amee rasulullah sallallahu alayhi ba mu mën ko jenc comme borom këram moom ci jëmu boppam loolu aussi nekkul fii ni jigéen dafa génn uti donc mbooleem loo xamante ne ci wàllu xam-xam wàllu ut économique wàllu lépp ak jouer ci ci ci société bi nekkul loo xamante ne ni hadis bi indi na ko daf koy dàq nga xool même jigéen ñi dañ doon ànd ak ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem ci li nga xam ne moom mooy euh, ci bërëbu xale yi xale yi ñi feebar ñu leen di faj loolu aussi xadis bi indiwu ko donc bu doon dañ ko appliqué woon kon ki jigéen du génn te lii maanaam ab xas la pour jigéen te loolu yëpp ay ji góor ñoom ñoo ko def ñoo xamante ne de seen intention maanaam li nga xam ne dañ koo am ci jigéen mu yéene nekkul loo xamante ne ni lu lu rafet mu am beneen xaalis boo xam ne dañ koo dëkkale suñu yaay Aïcha te du dëgg parce que bari na ay xadis yoo xam ne dañ koy dëkkale suñu saxaaba yi wala yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk nekkul ci ci ci ci dëgg laa tunziluhunna al-ghurafa yaani laa yuskin laa yuskina fii ala wala taalam wala taala wala taalamuhunna al-kitaabata gis nga mu ne mu ne bu leen di maanaam euh, euh, ci ci fu kawe bu ñu leen fay dëkkal te aussi bu ñu leen di jàngal euh, maanaam bind jigéen warul jàng bind xam nga loolu danger la nekkul loo xamante ne ñun dëgg la am la nekkul loo xamante ne lu am la ba ñu war koo mën a mën a mën a bàyyi xel parce que gis nga moom moom mu nga xam ne moom la ñu wax ne moom moo soloo xadis muy suñu yaay Aïcha moom la yonent bi wax ne nañu jël moom ci moom suñu màcce diine te moom dafa doon jàngal ay góor di jàngal ay jigéen donc gis nga ko donc loolu yëpp ay ay complot la contre l'islam te islam boo comploté ak moom nag munoo ñàkk bañ a comploté ak jigéen wax ci moom loo xamante ne ni lu war a di la Euh, lu warul euh, loo xamante ne daf koy de dévaloriser te loolu dafa nekk lu lu doy waar. bu ngeen demee di ngeen gis ci jigéen ñi ki ci jiitu mooy Khadija bintu Xuwaylit gis ngeen ko euh, taxawaay bi mu taxawee woon ci rasulullah sallallahu alayhi importance bi nga xam ne moom la joué ba yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam naan lawla maalu Khadija ma abat na bu fekkonte ne ne Ali maanaam xaalisu Khadija amuñu ko woon kon duñu jaamu yàlla. li nga xam ne noonu lañ ko war a jaamoo nga xool ci Fatuma bintu Asad muy yaayu Ali ibn Abi Talib moom it li nga xamante ne ni moom la joué ci ci l'islam ak euh, ni mu taxawoo ba sax fii ci Sénégal gis nañ ko ah, nee nañu képp koo xam ne ku jigéen la bu gaañoo ñu jël turam bind ko ci bàmmeelam avant ñu koy def ci euh, ci biir yàlla dana ko may mu am texe nga jël Fatumata bintu Rasul mooy Fatumatu Zahra Euh, albatul nga xam ne moom doom la ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk sayidatu nisaa'il alamin ak taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw mooy umul aima al euh, euh, min wuldil Xuseyn nga xam ne moom mooy ba dayu aima ak place bi nga xam ne moom la am nga xool umu amar mooy ki nga xamante ne moom mooy amar yaayam muy koo xamante ne ni dañu koo rey eh, rey boo xamante ne ni bu keemaane bu doy waar dañoo jël takk tànkam fii jël eh, gëléem ñaari gëléem bee takk fee bee takk fee ñu jël ko xëcc ko ci noonu lañu ko reyee moom yaayu amaar ba nga xamante ne ni eh, noonu la génne noonu la génne noonu la génne adduna moom moo njëkk a jigéen bi njëkk a euh, joxe ji maanaam boppam deretam ci lislaam muy muy muy muy muy euh, yaayu Amar euh, mu tudd Sumayya donc nga xool Asma bint Yazid nga xool Umu Sulay Sulaym Sulaym nga xool Umu Haram bintul Milhan ak Zeynab ibnul Umul Muminin ak Umu Habiba nga xool ummu ayman xafsa ummul muminin ñu gis xafsa aussi amatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asma bint umays ak asma bint abi bakr ñu gis aïcha ummul muminin am ummu sharik safiya ummul muminin ruqiya bint rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ummu kalsum bint rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sumaya bint xubaab nga jël juwayriya euh, bintul xaaris nga jël sunu yaay sawdatu bintu zaama ñu jël maymuna bintul xaaris umu waraqa bintul xaaris umu xulaat gis nga ñooñu ñëpp ñuy vingt cinq yoo xam ne ci ay jigéen yoo xam ne seen taxawaay dafa rëy dafa rafet dafa nekk loo xam ne dañ ko joué pour l'islam dañ ko pour li nga xamante ne ni mooy sur le plan social sur euh, nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, économique ci wàllu xam-xam ci wàllu lépp loo xam ne góor ñi dañ ko def jigéen ñooñu nekkoon nañ ci wetu jigéen góor ñi di ko defal lislaam di ko defal yonent bi di ko defal alquran pour diine bu bees bi nga xam ne ñëw na wàcc yonent bi mu am doole parce que ñëpp xam nañ ne góor rek du dem euh, jigéen rek du dem ndaxte dafa mel ni sër ñaari loxo koy takk comme ni nga xam ne pantalon aussi ñaari loxo ñoom ñoo koy takk aussi ci sunu jamono ji di nga xam ne am na ay jigéen yoo xam ne yu amoon taxawaay bu dee ci wàllu politique euh, bu dee ci wàllu xam-xam bu dee ci yooyu yëpp ci fii ci Sénégal ci ci Afrique yu taxawoon ñoo xamante ne ni dañu yàgg taxawu ñu xam leen ci muy ci Afrique noire ba ci sunu Sénégal gi li jiitu même ci Sénégal ndate ñoom ndate yàlla yooyu yëpp amoon na ci ci ci ci Sénégal ay boromi ay boromi ndombo tànk ci wàllu politique. ci wàllu xam-xam euh, aussi mu am ci ma wax la ne ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, ñoo ñoom ñooy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama ji doomu tubaab yi ñoom it gis nga seen wax yu yëpp ay waxu caaxaan la dañuy doon wax rek waaye parce que boo dee xool ñoom it dañuñu di suufeel jigéen di ñàkkal jigéen solo di ñàkkal jigéen fayda dem na ba ci wàllu xam-xam Euh, boo xamante ne ni ñëpp euh, xam nañ ko ñoo xam ne dañoo joué de grand rôle ci wàllu lu avancé loo science avancé loo médecine euh, technologie waaye jigéen yooyu dañu leen di dañu leen ci tooñ soit ñu jël li nga xam ne mooy prix yi ñu ñu découvrir mooy ci xam-xam jël ko jox ko seen borom kër wala ñu jox ko ñoo xam ne seen i way jege ñaalee ñu parce que ay jigéen lañu te bëgguñu jigéen euh, maanaam rolam fes bu baax a baax a baax mën naa ci tudd euh, euh, boo dee xool avant ma leen di tudd ci 833 hommes depuis 1901 bi nga xam ne ci lañuy ci wàllu prix Nobel laay jële laay jël exemple parce que tey adduna bi képp koy def ci wàllu science ak lépp ci adduna bi foo mën a nekk ci prix boobu moom moo gën a prestigieux moo gën a mag kenn ku ci nekk moom lay euh, euh, xëcc di ci dem muy ci wàllu littérature ci wàllu physique ci wàllu chimie ci wàllu mathématique ci wàllu médecine euh, ci wàllu art ci wàllu même sur la paix politique yooyu yëpp prix boobu moo ci gën a am solo waaye seetlu nañu ci 833 hommes maanaam 833 hommes juróom-ñett fukk ak juróom ak ak fan ak fanweer ak ñett ci ay góor daanaka quarante na femmes rek maanaam ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay jigéen rek ñoo mas a am prix boobu euh, donc loolu nag mu nekk euh, boo xamante ne ni euh, lu lu lu lu lu keemaane la loo xamante ne loolu yëpp dara waralu ko lu dul moom mooy ne jigéen ñi seen condition de féminité ñu nekk ay jigéen te góor ñi aussi bëgguñu jigéen ñi fës trop moo tax ñu élitiser ko élite bu nekk une élite masculine suufoo boo xamante ne ni euh, maanaam bu masculine boo xamante ne ni dañuy bëgg chance boobu rek moom moo koy ñooñu lay doon bu ngeen dee xool euh, par exemple am na ku ñu tuddee Lise Meitner Lise Meitner mi gaañ ci mille neuf cent moom ci jëmmu boppam euh, daanaka physicienne la physicienne boo xamante ne moo njëkk a découvrir li ñu la fission waaw donc ci ci ci physique en mille neuf cent euh, euh, la fission nucléaire en mille cent trente-huit gis nga kooku bi nga xamante ne ni euh, découvrir nañ ko malgré que dañu ko waroon a nominer waaye dañoo jël jëm jël benn mbokkam bu tudd Otto Hahn Hahn koo xamante ne moom la ñu jël récompenser ko ci place am moom mi nga xamante ne ni mooy Nils Mayer kooku moom njëkk a découvrir la fission nucléaire boo demee ci niti Maria Stevens moom it généticienne la américaine euh, moom it mi ngi gaañu ci 1912 moom moo njëkk a découvrir que ne ndekete le sexe de l'enfant était déterminé par les chromosomes maanaam euh, pour nga am doom bu góor euh, ndekete chromosomes yi dañ ciy jouer rôle kooku boo demee ci xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci a bari wax na ko ci lan moo tax nit ki bu am génnee bu ñëwee àdduna léeg day nuroog du nuroog baay bi du nuroog yaay ji mais ay maamam lay nuroog wala ay nijaayam lan moo indi lool lool xam naa du objet suñu waxtaan dinañ ci ma a ñëwee boo xoolee Rosalind Rosalind euh, Elsie Franklin euh, nga xamante ne ni euh, def na ko dañ ko sàcc aussi nobelam prix Nobel boobu nga xamante ne ni waroon na ko jël ndax moom mooy ki nga xam ne mu njëkk a def ci travaux ci la structure ADN maanaam li nga xam ne moom la sunu ADN euh, euh, bindoo moom jigéen boobu moom moo ko njëkk a def moo ko njëkk a moo ko njëkk a génne moom boobu euh, bi nga xamante ne ni sax génne na ko au yëkk que ñu jox ko ko waaye joxuñu ko ñu ngi ko jox Francis Crick ak James Dewey Watson en 1962 ndaxte ñooñu dañoo dem ci suuf. dem suufu ko dem xool ay recherche sàcc ko ñoom góor ñooñu biñ ko sàccee nag ci lañ ko génnee euh, ñu jox leen ko ñooñu euh, kooku moo njëkk a génnee ci wàllu structure ADN waaye aussi structure wu les virus maanaam yi nga xam ne ci yi naka lay ma naka lay tuddoo gis nga loolu jigéen ñi góor ñi ñoo ko def euh, li nga xam ne mooy jigéen ñi boo demee aussi ci Cecilia Payne-Gaposchkin Euh, moom it euh, mu nekkoon koo xam ne astro astronome la woon daanaka thèse de doctorat bi mu def mooy ci wàllu astronomie c'est la plus brillante jamais écrite en astronomie maanaam kenn musul def lu mel noonu ci wàllu astronomie boobu aussi euh, amul chance aussi pour jël ko dañu ko sàcc góor ñi ñoo ko ñoo ko sàcc li nga xamante ne ni moom la defoon ci ne les étoiles sont composées d'hélium ak d'hydrogène moom moo ko njëkk indi muy élément yooyu nga xamante ne ni euh, yu am solo ci élément chimique tu vois donc mu nekk loo xamante ne kooku aussi professeur am bi mu ko trouvé étant euh, euh, élève professeur am moo ko jël professeur de recherche am mu tuddee Henri Russell moom moo ko dissuadé ne bu ko publier waaye professeur bi dem ci suuf publier ko boppam tu vois ñu jël euh, maanaam prix boobu jox ko professeur am Jocelyn Bell Brunel aussi moom it la même chose gis ngeen ko astrophysicienne britannique la aussi moom it étant élève moo njëkk a découvrir maanaam li ñu tuddee euh, euh, ci wàllu astrophysique maanaam li nga xamante ne ni lu am solo la ci ay recherche yoo xamante ne ni def na ko ci ci wàllu pulsar le premier pulsar moom moo ko njëkk découvrir moom Jocelyne Bill euh, Brunel waaye gis nga professeur am moo ko sàcc ci moom professeur am boobu di Anthony Hebbish moom lañu ñu mujj jox euh, li nga xamante ne ni moom mooy prix Nobel bi ci wàllu astrophysique dégg nga nga xool euh, Esther Zimmer Lenderberg moom it nga xam ne microbiologiste la woon mu nga xam ne moo soxna soxnaam jëkkëram ñoo doon liggéey ci wàllu génétique ak ci wàllu bactérie waaye gis nga malgré recherche yooyu mu def moom ci jëmu boppam dañ ko sàcc jël ko jox ko rek Josia Lenderberg muy maanaam ki nga xam ne mooy jëkkëram ne moom moo génnee prix yooyu gis nga boo demee ci wàllu Mileva Marik Einstein nga xam ne moo doon borom jëkkëru maanaam Einstein mbooleem travaux yi nga xam ne yëpp Einstein def na ko lu ci gën a bari moom lañu moom la ñu wax Einstein waaye moom ku jigéen bi base bi ci ci moom la la la la jóge mu nekk koo xam ne ku am solo waaye yëpp prix yooyu yëpp Einstein la ñu ko doon euh, euh, euh, dëkkale ni moom moo def def loolu boo demee aussi ba ci ci Marie Curie Marie Curie ak Pierre Curie xam ngeen leen moo université Pierre Marie Curie bu France gis nga mooy seule femme boo xamante ne sax am na chance ci Nobel am chimie am chance Nobel ci ci physique te loolu li ko indi xam ngeen ko moom mooy ne euh, ci kooku c'est depuis 1903 ak 1911 tu vois kooku moo moo moo moo moo ci rëccul ci femmes yi nga xam ne ci rare femmes yi nga xam ne sàccuñu seen ay góor ñu sàccuñu seen i prix ne ñoom ñoo ko def pour l'humanité fekk ay jigéen lii dalay woon jigéen maanaam ndekete ci wàllu njàng ci wàllu xam-xam ci wàllu développement ci wàllu lépp ku ko bàyyi di nga xam ne am nga koo xam ne sa àndandoo la ci wàllu développement ci wàllu xam-xam ci wàllu nite te loolu bu amul jigéen buñ ko boolewul ci société ci li nga xam ne moo koy développé loo du mën a dem léegi nag pare nañu léegi ci volet yi nga xam ne moo doon place jigéen en tant jigéen ci wàllu nature naturellement ni ko yàlla sàkke waaye place am ci société wax li nga xam ne moom la ñu jàppe ne jigéen noonu la war a mel société bi ak niñ ko ñàkkalee solo te du loolu amul léegi nag dinañu commencé nag léegi nag dugg ci l'islam gannaaw bi nga xam ne aussi ci ñi jiitu waxoon nañ christianisme naka la ko gisee ci judaïsme naka la ko gisee ba wax ci tawra ancien testament ak yooyu yëpp ak ci philosophie occidentaux yi occidentale yi naka lañ ko gisee ñëw ba ci ñoom John Locke ñoom Voltaire yooyu yëpp naka lañ ko gisee ak yu demee noonu léegi nag ñuy dugg nag ci lislaam li yëpp pour ñu xam lii ma wax ni yëpp du jigéenu chrétien wala catholique wala musulman wala juif wala ku dul jullit man jullit jigéen rek laa doon wax de manière générale ñu ko société yi jàppee euh, te euh, pour ko defee ñu mën a xam léegi lislaam moom bu ñëwee ci jigéen naka la koy teg place bi mu ko teg dëgg dëgg dëgg di luwaat ñëpp ci guddaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.